Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur si si maa ngi nii taxaw wax amul dara xewul euh, dubu bu dama leen delloo ziar bu rafet waaw tey ñu tase fii ci Mbacke Bawol waaw gis nga waaw fii moom suñu dëkku cosaan la moom waaw seetaan si wala ngaa ñëw si ñaati non dañoo ñëw andi ay mbër nag ah, waaw day am suñu suñu ñetti mbër yu ne suñu écurie yu bëri ñu leen di ñaanal ku ñu si ni Siteu bu Diourbel mooy bëre grand combat bi si ñun la nekk eh, ngel joon tamit si ñun loo nekk ak Ama bu Rebeuss si ñun la nekk ñetti ñooñu lañu andi daal ñooñu fi tax a ñëw. sa combat ak Feugeule la ma ci a wax. ak ah, combat bi amuma dara lu ma ciy wax parce que le 7 juillet la ay ñaan yàlla yóbbuñu seeg jàmm rek. nee na bu bés ba doo bëre moom wax ji la wax ji rek moom wax ji la jàmm rek dañ koy bàyyi wax ji ba bés rek. nee naa wax naa ko dama koy waxaat lépp lu fay neex ñu ñoo koy def lamb ji lépp lu fay neex ñu ñoo koy def sa xeex dafa des ñii naan sa xeex dafa des lan nga leen di wax duuma waaw ñun ay ndongo lañ dañuy jàng rek ñun moom dañuy jàng rek waaw xëy na dina mës a mokk incha allah waaw double moteur mun nañ xam lu ko indi mais double moteur diis na de waaw <laughs> non double moteur bi xam na xëy na fi ma doon joobee la rek fi ma doon liggéey quoi ci paak bi affaire yooyu noonu mooy loolu demee si paaka bi mooy loolu comme lan. affaire moteur yi xam nga si ay affaire moteur laa doon liggéey quoi nekkoon ci paaka bi di fa liggéey affaire moteur ak yooyu noonu. double moteur bi lan moo ko indi loo def bañ tuddee la double moteur. waaw mais gars yi rek gars yi moom des mooy loolu xam nga des fois moom boo nekkee ci paaka bi ne xaw a wala nga xaw a ni moom benn instant moom dañu xool li gën a paaka bi rek ñu tuddee la nga nangu. waaw. nga yow di ko ñaanal jàmm rek. fëgal di waaw kon baax na day gën a métti ci moom rek moom bu ma bañee may chance dem day gën a métti ci moom ndax ñun ñooy xale wax naa ko dama koy waxaat lépp lu fay neex ñun ñoo koy def moom bu ñëwee dal na ñëw dal rek na ñëw dal ànd ak dal rek def ndànk ñu daan ko ndànk mais su su su ko su dalul deful ndànk tamit day gën a métti si moom. billaahi day gën a métti si moom lu garaaw laa la wax instant gars yi pare nañ de. te dañuy xaar ci xeex wala xaar lépp billaahi walaay dina xeex dina bëre ndax xam naa ne combat bi yàgg xaar si plaqué wala ñu xaar si caxabal wala ñu xaar si xeex man ak moom barke alxuraanu karim xam naa ne atanu ko day sóob nii rek du xeex ñemewul sampu xeex ak man. bilaay walaay talaay wax ji moo fi nekk nii rek mais du sampu xeex ak man mais maa ngi koy xaar maa ngi xaar bu baax a baax. waaw incha allah ngeen di bëri. arène nationale di ci woo gaay rek gaay yi moom instant pare nañ moom instant yii moom pare nañ moom waaw ku yéex moom naa ne moom bi yoon moom barki yàlla doo dugg parce que gars yi ni moom wax dëgg yàlla moom moom combat supporter yi la wax benn interview sax combat bi combat supporter ñoo ko ñoo ñoo ko ñoo bëgg ñoo ko soxla ñoo ko yàgg bëgg moo tax xam nga combat te instant yi pare nañ bu yàgg te yàlla jàppale ni tamit ñu war a jënd bi yooyu instant yi ñoo fi man ñun loolu la ñuy ñaan yàlla dem ba téeru waa des arènes bëri ci kaw waaw te bëre fëgale fëgale ndaanaan la bëri na fa ku ne xam ne ku bëri ay Ama Baldé ay Garga Mbossé bëri ku ne kooku maanaam boo ko daanee dina am fu mu lay yóbbu te ñun loo boobu lañ bokk ajadu bu motal maa lay waaw di leen jaajëfal yéen tam di leen baalaax di leen baalaax di ko baalu waa Sénégal yëpp nag di leen ñaanal jàmm Thank you. ngi delloo ziar soxna si. ci loolu. sant yàlla borom. a Njamala. Njamala ah Njamala rek. mooy rabu àll moo tax Njamala lan mooy noonu ne ci bi rek bu borom baat bu guddi bi ci suuf. ah. ah waaw moo tax nit neexu maa ñeme de. man maay dajee guy gi bu waaw. tey fii du yomb. du dara da ànd samay mbokk ànd sama grand Malick Niang samay doom ndey ñëpp rek pare rek. pare naa yow pare naa pare mel ni tërë des pare naa. lépp ni daa mel ni des. lépp a mot ci kanam lay leer maa war a dem ci géew bi ni yaa war a dem maa war a kay. lépp kay lépp bëre lépp ay am. Jamala a ngi def lu ko mu ngi mu ngi def lu ko nii. tooñu ma non tooñu ma de am nga rek affaire yi la quoi bagage yi la quoi. waaw kon ma lay delloo ziar bu wër waaye. wala ci loolu. sant yàlla bu baax a baax. noo naa ko ci lépp ci xeex ci lépp fas yéene jàpp daan rek waaw. wala koy dajal. man saakaayel laa taseel écrit écrit rëbës non saakaayel écrit plateau. war koo daan incha allah man maa nekk écrit jàmbaaru Dakar maire Mousse. lan moo tax Balla Moussa. ah Balla Moussa bi. non man de waaw noonu laa a xaar Ah, xanaa di rafetlu bés bi rek waaw fas yéene daal di ñaan yàlla suñu borom ñu mën leen tam bu set get wecc ma bëgg sama supporter sama am di jàmm sama yëpp waaw. ñaata yaakaar naa bi mooy sama septième combat yaakaar naa sama juumul. ñaata victoire maa xaw a bett mi kon ma limal la ko quoi parce que benn bët kese laa ci am mooy asaka bi. wala daal. mu ñuy wax bébé ama sama victoire la presque boo xoolee ak benn sans verdict. waaw victoire nga jógee wala si victoire laa jógee par kaw te moom loo koy wax moom. mais incha allah moom naa ko teg lu métti moom naa ko teg lu métti incha allah rabi. ci lépp xeex ak bëre du yomb ci moom. ñaareel nga koy indi. waaw. Eh, eh, loolu day ëpp lu tàng laa koy indi tey. day ñaari rek. wàññi sa dose Balla Moussa moom mag la mag la ñaar moo ci baax. la waaw moo tax nga jël ko. ah xanaa rek bu ko dafa may chance bu ko ma boo jël chance bi rek chance bi laa boo jël rek daan ko. boo génnee fii man Dakar ma nekk nii rek laa bëgg a bëriwaat su ma jógee fii Dakar fi ma nekk noonu laa bëgg a bëriwaat

baax a baax. yàlla na nu yàlla boole baal nu fekk ko at yu bari bari. allahumma amiin waaw. Ndiol Dione yaa ngi bëri xeeru Diourbel xam nga xale bi ngay bëree. waaw xaw ma ko nii sax miinu ma ko ko waa mais nag maa ngi sama yaa ma gën a xam li daal wóolu naa ko baay. non yow war nga mën a xam xeeru Diourbel parce que fii da ay combat. waaw fii de mais dégg naa mi fii bëri mi ngi am ndam yàlla mi ngi koy suturaal mais tey nag damay ñaan yàlla suturaal ma quoi damay ànd ak samay grand ay Mamadi Ndiaye ay fils Guy gi ay gars yëpp sama gars yëpp ci ginnaaw ay ndonga xam nga Baye Fall yëpp di ñaan yàlla mu am ndam ñu koy ñaan mu may ñu ndam lu sedd guy ci kaw xeeru jul na nekk miin nga njaareem ah waaw fi benn yoon nag bi mooy sama deuxième combat bi combat bi di nga ci xeex wala waaw bu laajee xeex ñu xeex bu laajee bëre ñu bëre ndeysaan kon looy wax xeeru Jurbel yow da ngay daan daal yow dem ñibbi Dakar waaw xeeru Jurbel mooy arbitre rek incha allah zeta sekoñ esekeñ bu Thank you. sant yàlla bu wér. ah mu bi waaw sama bi dafa daw. Ah, moo tax ah, xëy na état bi la gis rek moo ko ragal loo mais du dara de. na ne yow la war a daj. waaw non maa ngi moom a yem rek photo la ñu am waaye ko photo. waaw mais man musuma ko gis tey laa ko mos a gis maa moom ñoo yem rek. daa gis mu jàpp ne yaa dafa jàpp ne maa man loolu moo tax mu daw mais xam na lool sax boo ko wax mu xam ko boo ko mu xam ko boo xam na ne maa ko man barki yàlla entraînement yemul koor gi li muy xar damay am trois séances maam Thierno Samb maa ngi koy sant bu baax a baax baax koor gi moo ma yor en charge bilaay ay Pam Ñang Baye Kebe Ilimane Samb apparemment maa ngi sant ak suñu jigéen bu baax bi ñuy toggal Aysatu maa ngi koy bu baax Abigé sama caamin maa ngi koy sant Bigé sama rak li méttiwul nga ñëw ba ah, ah, amee baax na mais mënoon naa ko amee neneen quoi. noo koy nag. noo koy wax ah na góorgóorlu gën a entraîné da xam ne ndaw la rek affaire yi moom na la rek du dara. liggéey rek gëm man maa ngi laaj Gris bu Mbàkke ak Boy Niang ku mooy ku ñaar ku ñëw baax wala Seko Balde wala Ama bu Malika bari naa am ay adversaire daal boo limee da juum. waaw Seko Balde ak Ama nar a daje loolu dina métti de. trop combat soxla man maa ko soxlaa sama bopp. billaahi walaay. combat kon changé man Ama bu la Ama Balde bu mag damaa war a jàppante moom. moom nga nar a non loolu dara bëri métti na mais suñu métier la waaw. merci. merci maa ngi lay jaajëfal. Thiatou Rebeuss. waaw maa ngi lay fay awa. ci loolu. sant sëñ Afia Mbacke. yaa ngi yàlla bu baax rek. tey nga ñëw Mbacke. Diourbel. waaw sama dëkk laa ñëw. man mbër man mbër bi yàqu combat bi yàqu la. waaw kii xam nga rek lii moom amul fenn ñëw préparer combat lu mat deux mois ñëw ba fi ñu ne la bëri loolu dafa métti te mbër mi daal dal ko mën nga toog loolu dafa métti. CNG bi loolu ñoo war a jël seen matuwaay ndax ku lekk avance bëre góor yàlla góor yàlla nga a doona ah. même bu lay rek juin sama diggante ak nëb maa ngi woo waa Rëbës xam na nëb rek rek moom le 16 lañ war a bëre ci combat Marley maa ngi woo waa Rëbës gépp am na seen doom seen xarit Baye Fall bi taalibe Serigne Afia Mbacke moo aye di woo gaab le 16 di woo waa Diourbel waa Kër Balaye waa Kër Cheikh Kër Sëñ Besar Rëbës bàyyiwuñu kenn di woo sànce ba kusum Medina Gold Apé Fass maa ngi woo gars yëpp di woo tarkindaa yi nag ak takarikin yi di woo waa diwaanu Café gi dinañ xam ne ñu waa lycée bu baax xam ne retour cadre bi dañ ko war a marqué di ba maar ñooy borom dafa leer xaritu yaayam xaritu papaam bu jugee rëbës ñëpp jug xam ne doomu rëbës la te rëbës ay présenté xam ne couleur rëbës la ñuy défendre yéen moom yéen ñaase bi ñi ngeen sant bu baax dina gërëm ñaan si liggéey rafet naa dama leen di suivre bu baax a baax liggéey bu rafet ngeen def aar bi kenn moom ko seen asamaan la jërut buuxante mooy taxaw gis kese noonu la fay demee ah ku sa ku sa kër doo tala peen lu leer nga wa ay yaa dégg Lac Rose maa lay si waaw maa ngi ziar ça va soxna si Lac Rose yaa sa yaram dafa mel dafa tàng waaw naa tàng jër kay lu lu sa waay indi rek ma fekk ko si loo indi man moom li ma indi moom après si digg géew gi incha allah lañ koy xam moom bu soobee yàlla. lan moo la neex si Lac ba nga tuddee sa bopp la. non Lac Rose xam nga rek mooy loolu daa tombeek may fël jamono yooyu mooy loolu quoi ma gis ko mat waaw mooy loolu loo tax ma tuddee ko sama bopp ko. Ah, ah non waa ndànk-ndànk rek ñu déggante waa. yow foo dëkk fii. man Diourbel laa dëkk waa mais Kër Massar laa ne Ikri Diop soog nekk. Ikri Diop soog a nekk laa nekk. ñaata combat. man instant bi mooy sama neuvième komba ñaata victoire. Euh, huit victoire benn défaite. waaw tey loo indi. waaw tey lu sama adversaire indi rek moom laa indi bu soobee yàlla. li nga indi lañ bëgg xam ñun yow xeex nga indi wala bëre wala caxabal wala noos wala palaage wala loo indi lañ bëgg xam. lañ ma entraîné lépp lañ ma entraîné xeex entraîné nañ ma ko bëre entraîné nañ ma ko waaw lu lu mu indi rek ma fekk si ko si. koor gi lañ génn nga doon waajal combat yaa ngi doon woor. maa ngi doon woor waa ñaata séance nga rek deux séances noo ko doon defee ak nga woo. dañuy ndogu pare dem buñ toogee ba trois heures du dem. est-ce que ah, doon woor kay. waaw yaa doon yéeg di. Ah? ñu ngi doon yéeg si dini kay. waaw ñu ngi doon contact lu mel. maa ngi doon dem Saal maa ngi doon def di contact ak gars yi ay ñoom Paul ñoom Aziz ñoom Sida ñoom Badji ñoom Thiat <laughs> ñoom Rendi Seck ay ñoom Xayta. lu mu la jaral <laughs> ah? lu mu la jaral combat na yàlla combat bi lu ma jaral dafa bëri barke Serigne Touba daf maa jaral lu bëree bëree bëri. daf maa jaral lu bëri te bu arbitre sifflé nga koy xam. combat fi may yóbbu la fi may yóbbu la waaw li ma doon sama àdduna mooy bëreeg ñu ma mag nee nañ gi mag la waaw bu soobee yàlla dinaa ko wan mag nga ko bii ban la. non bii gars ma ko jox Ousmane moo ma ko jox. bii tamit moo moo ko jox. waaw bii moom kii moo ma ko jox fii la xam nga rek yaa ma gën a xam <laughs> mooy loolu. Ah. waaw gars kon ñu baax na incha allah rabi waaw incha allah. nu muy def géej gu nu day toj keneen day yow nooy def géej. waaye yow géej koy dama koy dama koy felfelaale <laughs> yaa ma gën a xam. nee na da koy felfelaale. nee na kii par kii kii foo ma. waaw mais parce que lam ñi daf ñu ñor dañ joge ba Kër Massar. ça va ñoo nekk di entraîné. jàkkaarloog àdduna. waaw ça va dañ nekk di entraîné 3 heures du matin la ñuy jóg ñun ñëpp ngay gis ni mais dañuy woor. bu ñu jógee dañuy daj lu metti ñëw xëdd tëdd nelaw bu ñu dogoo pare nekkaat ci moo tax tey ndam rek ndam rek moo ñu jig. combat bi tey jaral na bu baax moo tax ñu jógee Kër Masar ñëw. Eh, ki ngeen di bëre na problème. ñuy jàpp di ñu foowee te ku muy bëral maa ko mën fukki yoon alimentaire dara sax may di ma foowee di ma daan comme xale kon rek xaju ci kaw kii. wala boobu alimentaire dafa xew de. non alimentaire xewut buy xew côté bee la xew mais munu xew côté bii. ngeen koy xewil tey. non day xewi tey day xewi. ñun rek Serigne Ngalañ yaa bëgg a xam. kon neel xeex bi. ne xeex bi lay <laughs> maa leen di ñu ngi lay fay soxna si. ñu ngi lay fay baax pël bu rafet. su ngeen ne. sant yàlla bu baax nii rek nii di am jàmm bu baax waaw. tey. tey indi suñ doom nday suñu xarit waaw suñu lépp daal. mu war a tase kan. mu war a daje Alioune moo am problème. Ah, man ma foog Lac moo am problème. Alioune Mbaye moo am problème. ndax mafia bi jógee ba Dakar xam nga tuutiwul ñëpp ñëw soutenir suñu rax suñu doomu ndey suñu lépp muy Lac Rose ñu koy ñaanal tey yàlla may ko ndam lu sedd guy ci kaw Alioune Mbaye Nder. dina mel ni bëgg bambara. noonu la deme nag yow yaa ma gën a xam nu mu demee dina mel ni bëgg ju bambara. waaw no waaw noonu la demee rek xam nga rek waaw dañoo jóge Dakar ñëw indi Lac Rose jóge ba Kër Massar waaw ñëw ànd seeg moom pour rek yàlla may ko ndam ñu ngi koy ñaanal ndam li nag baax baax pël bu rafet waaw yow tam di la ñaanal bu baaxa a baax xam di nuyu ñëpp tamit. dama xam nga di nuyu ñëpp xam nga parce que tamit suñu grand yaay ne ci kaw tribune bi ñoom Modou Boy Seedo xam suñu coach baa ngi nii suñu coach bi. waaw Maseer. Maseer waaw ma Maseer ñu la koy nuyul baax ñu ngi ñëw nag nañ ñu xaar. waaw di sant ñëpp waaw di sant waa Kër Massar amuñu seen fay di ñaanal Lac Rose yàlla na ko yàlla may ndam waaw si bis bi quoi bis bi suñu bis la ñoo jógee ba Dakar Kër Massar waaw ñaanal Lac Rose yàlla na ko yàlla may ndam waaw. da ngeen ko la Rose lépp lay def. non combat rapproché lay def. waa moo ko sut moo ko moo ko ëpp ko ronge dañ ne ko na ko jege rek bu waa ji jógee rek mu daal daje moom jàmm na demee waaw. te incha allah bu defee loolu day am ndam incha non man moom sama combat ñu ngi koy dox léegi mu taxaw incha allah léegi ñu daje Iba Mar ma ak <laughs> man la tra maa ngi waaj la 31 juillet incha allah. Ah, kan ci wax waaw gaa ngi wax adversaire ensemble lañ nekk di lijjanti. foo jógee. man maa ngi jógee ci Aïdara le 22 avril bi yaa ko defaloon bu cuur kay laa ko defal. vite fait c'est bien fait. defaraat man maa ngi jóge ci deux victoires dafile Candeela ak ak ak kii xam nga rek tur bi laa fàtte quoi mais ci deux victoires d'affilée laa jógee daaw nag bëriwuma mais ren maa ngi ñëw. maanaam ci victoire nga toog. waaw maa ngi ci deux victoires laa toog d'affilée. mention amuñ seen fay gis nga fu ñu nekk dañuy soutenir fu ñuy dem tamit dañuy gunge te ay borom jabar lañ ay borom jaboot lañ amuñ seen fay mention spéciale barke seen am di leen ñaanal yàlla may leen tal ak fekkee bañ xam nga fekkee. ayca ñoo bëgg micro nag mbëri. wala benn bi ayca ayca pël bu rafet. champion maa leen di ziar. ñu ngi lay fay soxna si. ñu ngi lay fay baax pël bu rafet. ci yàlla bu baax kay. ñoo nii rek ñoo nii di am jàmm bu baax waaw. kan tey. tey lagros lañ indi. suñ doom nday suñu xarit waaw. suñu lépp daal. mu war a tase kan. moo am problème. man ma foog Lac Rose moo am problème. Aline Mbaye Nder moo am problème ndax mafia bi jógee ba Dakar xam nga loolu tuutiwul ñëpp ñëw soutenir suñu rax suñu doomu ndey suñu lépp muy Lac Rose ñu ko ñaanal tey yàlla may ko ndam lu sedd guy ci kaw Aline Mbaye Nder. la demee nag yow yaa ma gën a xam nu mu demee dina mel ni bëgg ju bambara. waaw no waaw noonu la demee rek xam nga rek waaw dañoo jóge Dakar ñëw indi Lac Rose jóge ba Kër Massar waaw ñëw ànd seeg moom pour rek yàlla may ko ndam ñu koy ñaanal ndam li nag baax a baax pël bu rafet bu baax a amaret di nuyu ñëpp tamit. dama déconcentré xam nga di nuyu ñëpp xam nga parce que tamit suñu grand yaay ne ci kaw tribune bi ñoo Modou Boy ak Abou Seye Seedo xam suñu coach baa ngi nii suñu coach bi. waaw Maseer. Maseer waaw ma koy ñu la koy nuyul baax ñu ngi ñëw nag nañ xaar. waaw di sant ñëpp waaw di sant waa Kër Massar amuñu seen fay di ñaanal Lac Rose yàlla na ko yàlla may ndam waaw si bis bi quoi bis bi suñu bis la ñoo jógee ba Dakar Kër Massar waaw. ñaan Lac Rose yàlla na ko yàlla may ndam waaw. Lac Rose lan ko digal xeex wala. Lac Rose lépp lay def. non combat lay def. waa ji moo ko sut moo ko moo ko sut ëpp ko ronge dañ ne na ko jege rek bu waa ji jógee mu daal dajeeg moom jàmm. demee waaw te incha allah bu defee loolu day am ndam incha allah. bu combat. non man moom sama combat ñu ngi koy dox léegi mu taxaw incha allah ñu daje Iba Mar ma ak yow <laughs> waaw. yow man la tra maa ngi waaj la 31 juillet incha allah. kan. ci wax waaw gaa ngi ciy wax adversaire lañ nekk di lijjanti. foo man maa ngi jóge ci Aïdara le 22 avril bi passé combat spécial. yaa ko defaloon bagage. bu cuur kay laa ko defal. vite fait c'est bien fait. man maa ngi joge ci deux victoires d'affilée Candeela ak ak ak kii xam nga tour bi laa fàtte quoi mais ci deux victoires d'affilée laa jógee daaw nag ma mais ren maa ngi ñëw. maanaam ci victoire nga toog. waaw maa ngi ci deux victoires laa toog d'affilée. mention spéciale amuñ seen gis nga fu ñu nekk dañuy soutenir fu ñuy dem tamit dañuy gunge te ay borom jabar lañ ay borom jaboot lañ. amuñ seen fay mention spéciale barke seen am di leen ñaanal rek yàlla may leen tal ak fekkee bañ xam nga fekkee ay ca ñoo bëgg micro nag mbëri wala benn bi ay ca ay ca pël bu rafet pël bu rafet maa ngi lay fay champion ci loolu dèjà sama connexion yi rek laa koy jeexal al 24 ah tey koy daje maa ngi daje est-ce que nu mu tudd sax man xawuma ko de kenn xamul da ngaa jël da ngaa jël avance bi da xamoo parce que pël bu fet mu moo waxul dëgg mais si kanam tuuti dina leer na waru mën a jël kii waaw. bi nga ñëwee ba gis ko man maa ngi lënd Ibou Mar Diop. laa fa mujjee bëre drapeau démb loo ma ñàkk ko am lu ma métti trop si kanam tuuti incha allah confirmation bi mi ngi ñëw. non bi nga ñëwee ba gis sa te xamoo ko naka nga réagir. c'est-à-dire xam naa ko mais maanaam xam nga rek xam nga loo xam nga loo ma jël ko sama avance dafa tere ne fii Diourbel bakki alxuraan ñu bañ kaa jël. moom mu jël ko ma bañ a année balance ma jël ko mais leneen. année balance moo tax. ma moo tax ma jël ko vraiment. tey ngay wane sa bopp tey lay tey la lay waa Diourbel di jàpp tey lañ lay bàyyi. spécial drapeau Seye Gueye kay seetaanal après nga introduit waat. man pare gu maa yore da ngay xeex wala da ngay bëre wala looy def. su taxawee su taxawee ma duma ko billaahi billaahi. li nga gàccoo. non dama kaa xam sama mag ñëwee ma ko jox leen ma tàgg man entraînement rek lañ ma sas. dégg nga waaw ah, déguisement bi sama rek moo ma ko jël nii moo ma jox na ma solo moom mooy loolu dañoo xër si man. moo doon bëre ah? doon. waaw soppe soppe kii sama doom ndey la moo bëree daan gis nga jël. gis nga jël bi mu daan. ma ne yàgg na ci. lamb lamb moo dépassé fa gis nga Modou Lo ak Balla Gaye bu ndikkee dañuy gérer seen bis te ñoom àgg nañ fa jëm ba pare ay milliards ay millions la leen di fay kon nit ñi ñu bëgg a àgg foofu dañuy dikk gérer suñu bis ne ñoom. entraînement dafa baax. non. dañuy waxtaan na entraîné ji na yoo koy entraînement am looloo wax bi ko say naa la baax soona si. soppe da si géew. bi dañ fee dugg duggati fi di fi am safaan moo tax rek. tey non tey dañ kaa si yoon rek suñ ko si ñooñu wax ñu teg si yoon Tidjane Ndiaye Tafa Ndiaye ñooñu wax ñu teg si yoon rek. waaw gis nga noonu lay demee làmb ak looloo ànd waaw. waaw di ko ñaanal rek bu amatee beneen combat bu bokk te suñu équipe bi yàlla may ko ndam waaw. yow tamit boo amatee beneen combat gën koo waaj. am naa grand combat sax Mbacke bu ñu tabaskee ba pare. xanaa du kii moo daw waaw mooy loolu. barke maam Seydou Fall non kii li mu doon booyal sax moo tax ñu bëre moom ñoo ko jiitu si làmb téeméeri junni moo tax. waaw métti na de. waaw métti na ñoo ànd waaw. waa ñu ngi lay jaajëf waaw jaajëf di la bëggal waa baax waa di sant waa Mbacke bu baax a baax di sant Serigne Galsamina di sant sëñ ma Samba Ndour ak ñëpp waa Mbacke gépp ñu ngi leen siyaare bu baax jaajëfal Mbacke gépp waaw Mbacke gépp ñu ngi leen siyaare bu wér a wér a wér leen kontaane bu baax di leen bégee di leen jox seen waaj man dama koy salu quoi dama koy seetaan chaque a neex mooy dama lay seetaan di liw di bég seetaan naa